jot moo amul moo tax ci affaire Ahmed Suzanne Camara bi Ahmed Suzanne Camara dañ ko arrêté woon depuis semaine passée boobu ba léegi mi ngi retour de parquet loolu dèjà dañ ko a dénoncé ndax ci assises yi jàll ñu ngi doon dénoncé retour de parquet yi ñu jéem ko éviter luñ ko man parce que depuis une semaine nga yóbbu ni retour de parquet ci ci délit boo xam ne c'est un délit banal en fait ndax même bu dee offense au chef de <laughs> du crime délit la bu délit bu banal la. nga di ko jàpp di ko jaabanteloo di ko jaabanteloo mu mat une semaine yóbbuwoo ko bàyyiwoo ko loolu loolu teguwul ci yoon lu ñu war a dénoncer la d' abord bu weesoo loolu te démb Sénégal dafa bind ci benn article wax ni mm, procureur ci boppam ci def na réquisitoire boo xam ni daf ci demande ñu dafa dafa dafa dafa war a saisir un juge d' te ba noppi demande juge bi mu yóbbu Ahmed Suzanne Camara pour eh, yóbbu yóbbu ko kaso def ko mandat de dépôt kon ça veut que dafa bëgg dafa bëgg criminaliser dossier bi yóbbu ko en instruction loolu nag bu fekkee ni ko Sénégal bindee noonu la amee te loolu laa jàpp mbir la moo xam ne c'est gravissime procureur bi mi ngi mi ngi abusé ci loi bi maanaam mi ngi abusé ci loi bi di teg nit tort parce que Ameth Suzanne Camara lii mu def nii ñu koy jiiñ ci télé la ko defee dafa taxaw saaga mu leer naññ muy infraction bu leer naññ boo xam ni flagrant délit dañ ko war a yóbbu ci première audience bi njëkk am ñu àtte ko. loolu la yoon wax ku taxaw saaga nag ci télé ñu jël la yóbbu kaso moo ko bind ci Facebook saaga waaye nga wax lu lu ñagas ñu yóbbu la kaso ñoo lii ñu def Ahmed Suzanne bu buñ ko yóbbu instruction mooy liñ defoon jomaay rek jomaay dafa président jomaay bii nekk fii dafa bind jom dafa bindoon ci Facebook xalaatam ci li mu gisee justice baat yee ñagas na waaye wax de fond bi dëgg la loolu mooy dëgg baat yee ñagas na nag waaye fond bi moom kenn mënu ko woon weddi loolu ci lañ ko yóbbu ko sa tëj ko fi onze mois ba ni mu génnee nekk président muy loo xam ne ñëpp xamoon nañ ñëpp jalgati yoon la bu teewul fenn ndax nit koo xam ne da nga exprimer wax di nga wax da nga ko bind mu leer nañ ñi nga dikk ko ñu laaj la nga ne yaa wax ñu mën lay yóbbu atte la flagrant délit bu ñu lay daan daan la bu ñu lay bàyyi bànne procureur di abuser ci dooleem jël la jël code pénal code procédure pénale xoolay article yu mën a fexe fexe lijjanti ba requérir mandat de dépôt ñu mën la yóbbu loolu si abusé xam nga ñi ngi wax ne ñuy def réforme justice bi ñu wax ne procureur doo leen dafa bari même bu fekkee appliqué guñ ko dañoo war kilifa yi dañoo war a jox procureur yi yu leer nañ mu xamal leen ni bàyyi leen bépp dossier boo xam ne flagrant délit la ngeen koy yóbbu instruction parce que jël ay dossier flagrant délit di yóbbu instruction loolu loolu avis loolu loolu jaay doole la ak atteinte ci droit wu nit koo xam ne wax dëgg yàlla yoon dañ ko organiser képp koo xam ni li nga def franc grand délit kenn amul droit yóbbu la loolu képp ku la ko def jaay na la doole te loolu nag doolee procureur la ñuy sukkandiku ngir def loolu te teguwul ci yoon diw def na délit délit bi leer na flagrant lañ ko yóbbu tribunal ñu atte ko lu ko juge a noppi loolu ndax politicien la li bi wax neexuma def na infraction yóbbu ko ñu atte ko mais amul fenn fooy teg ngir di ko yóbbu instruction ngir nii nañ ma ko nañ ko tëj loolu loolu moo tudd détenu politique loolu noonu moo tudd détenu politique moo xam ku bokk APR la moo xam ku bokk feneen la parce que Diomaye Faye président Diomaye Faye mi détenu politique la woon waaye Ahmadou Suzanne Camara buñ ko tëjee ci cas bii nii buñ ko ci tëjee buñ ko tëjee ci instruction laa wax de waxuma la ñu yóbbu ko tribunal ñu àtte ko buñ ko yóbboon tribunal ñu àtte ko en flagrant délit bu ko juge bi tëjee benn weer ñaari weer ñetti weer loolu dootul du détenu politique ndax dafa dafa def extraction bu leer nañ waaye nag lii buñ ko ci yóbbu instruction tëj ko goso loolu moom jaay doole xam nga nag nit ñi léegi dañuy jaawale ñaar boo waxee ci euh, par exemple koo xam dañu violé ay droit am nga ni kii dañu violé ay droit am ñu yaakaar da nga bëgg a xam ne kooku tooñul non non ñun waxuñu Ahmed Suzanne Camara tooñul mais gis nga reykatu bi sax dafa am ay droit euh, ñun gis nga réew mi nous sommes dans une république gis nga république nag état droit lañ nekk tamit état droit mooy lan un état qui est soumis au droit même le président de la République il est au droit procureur ñëpp kenn amul. maqaama violé loi loi moo ñu bokk yilif ñun ñëpp ngay président ngay procureur boo violé loi rek yow nekkatoo dara tekkeetoo dara ak koo mën a doon xam nga lu tax parce que loi bi ngay violé loi boobu yow moo may moo la jox moo la jox moo la jox pouvoir nga mën a mën a def nga dindi président de la république budul budul woon loi moom mënu ma yilif mënut a yilif kenn loi moo ko may mu mën a nommé ko neex mën a folli ko neex mën a yilif nit procureur moo ko may mën a jàpp nit mën a tëj kon loi moom da ko war a respecté kon gis nga loi ci réew kenn du ko caaxaane kenn du topp comme le président Macky Sall doon def di violer ay droit ay loi délibérément loolu moo ko loolu moo ko mujjee dab ci fin de mandat gis nga li ko mujjee dab tamulu ci dara parce que gis nga justice kenn du ko kenn du violer kenn du kenn du ko caaxaane moom moo moo euh, euh, moo tax dañuy wax ni justice moo féete kaw lépp il loi moo jiite kaw féete kaw lépp kenn waru ko caaxaan président Macky Sall nekk na durant tout son mandat di violer bu justice jëlee décision bu ko neexoon mu lànk loolu gis nga mujjee na koo dab moo tax loi ñun li ñuy dénoncé rek leen la mooy violation des lois ah, li ci des ñun amuñ ci soxla ku képp ku violé loi nag moom dañ koy wax ku la neex doonal ku la neex parce que loi moo ñu bàyyi ñun ñëpp ci république lañ nekk képp ku violé loi koo mën a doon tuddal Macky Sall tuddal président Diomaye tuddal président Ousmane Sonko tuddal procureur ñun xoolu ñun nit yi loi yi la ñuy xool nañ ko respecté parce que boo ñu fi bàyyi képp ku nekk fa nga toog loi moo la fa teg bu loi amuloon yow mënoo fa toog kon le procureur il est investi de pouvoir loi boobu ko jox doole jim mën a gi ko jox moo tax ñun loi boobu nag moom moo ko war a sàmm ay kilifaam sàmmle ko kon des ce point de vue euh, nañu def képp koo xam ni li la yoon teg teg na la ko ñu bàyyi la nga teg la yoon tegul ñu bàyyi la nga am na loo xam ni képp ko koy def ci képp koo xam ni par exemple lii ci mbirum Ahmed Zane Camara nañ ko teg li ko yoon teg di wax ne la dul yoon dañ koy tribunal ñu àtte ko lu ko juge bi da teg mu tegoo ko mais nag dafa lay yóbbu kaso téye foofu parce que bu ko defee ñu xor ñoo ñen la ay quelques mois bàyyi la ah euh, wax dëgg yàlla day xaw a yomb trop loolu day xaw a yomb trop ñu xor ndax loolu mooy li ñu daan def détenu politique yi rek li Macky Sall loolu def détenu politique yi loolu nag waratul am Sénégal ndax loolu boo indi na Sénégal góom boo xam ne kenn waratu ko fay def kon li ñuy dénoncé delo dénoncé wuñ nañ ko dénoncé wuñ ko pour que kii dañu ko am kii wala déet parce que yaakaar naa président Macky Sall bu mu fi dee violé les droits nit ñi yaakaar naa ne doon nañ ko waxee sax ci ton bu gën a tàng bii parce que moom ni mu ko doon violé nag kenn kenn àggagul niveau boobu waaye bu ñu alerté yi dañuy bañ ñu àgg fa ndax loo gis dafa am commencement président Macky Sall nii la commencé ku ne li li mu def nañ ko teg lu toll noonu loolu loolu loolu loolu mooy justice ku ne li mu def nañ ko teg lu toll noonu toor mais kenn du teg ni toor bu mu deful instruction boo ko fa yóbboo juge boo koy boo ko boo ko instruire amul mu instruire xanaa kay maanaam procureur bi gannaaw moom suñu code pénal ak code procédure pénale da ko mooy ne ku bëgg yóbbu kaso doo la fay yóbbu même juge bi sax ni ma ko waxee léegi kii laaj article 139 du code procédure pénale c' est l' naa ne mooy article bi gën a liberticide suñu code dafa am ci biir code procédure pénale li ñuy tuddee les attributs du procureur ay doole yoo xam ne moom lañ jox procureur lu ko mu ci man cee def loo xam ne mara day taali mu am ay mu am ci biir code procédure pénale par exemple euh, article di tàmbale article deux cent cinquante six article article cinquante article cinquante la commencé ba cent article cinquante ba cent man naa article yi xool ba cent gis nga article cinquante ba cent ak article deux cent cinquante six article yooyu yëpp procureur moo fa am doole te article yooyu nag daanaka mo moom daa li ñu tuddee délit politique daanaka foofu la nekk appel à l'insurrection foofu la nekk article quatre-vingt fa la nekk moom ngay gis ñu wax moom la ñuy wax ni ay ay offense au chef de moom la ay mooy yi dégg ñu doon wax ci taamu Macky moo ngi dig mu ngi nekk diggante article cinquante à cent article deux cent cinquante-six nga xam ne moom la ñuy tuddee les délits politiques entre guillemets nga xam ne la plupart si ay politiciens rek lañ koy toppee ay politiciens lañ koy toppee boo seetloo ci boo seetloo ba ba ba mu amee ba léegi nga xam ni c'est des articles yoo xam ni bu bu procureur moo am doole ji heure heure bu ciy topp nii bu ko visé bu waxee ni euh, bu bu bu demandé juge bi ni ko dama visé tel article moo xam cinq moo moo xam article cinquante la article cinquante et un cinquante deux article yooyu yëpp ba ba koy àgg cent division de fausse nouvelle sax dugg na ci biir. Ah, heure bu ko visé bu ne bu ne bu ne procureur bi kii dama bëgg nga yóbbu ko kaso dama bëgg nga instruire dossier bi même bu dee amul ay faits yu war a instruire sax mu visé l' article l' application de l' article cent trente neuf du code procédure pénale bon le le juge est lié maanaam juge bi il est tenu bu demandé man daa dépôt le juge est tenu mënu ci dara moo tax juge yi dañ naan la ah boo di dikkee yu mel noonu bu amee dañ la wax dara dañ naan la Euh, réquisitoire procureur bi ngi nii de article yi la visé demande na la application de l' article cent trente neuf man mënuma ci dara dama la yóbbu kaso lii la lay wax mënu ci dara même bu bañee bu procureur day def appel dem chambre d' accusation chambre d' accusation da yóbbu kaso kon nga xam ni loolu c' est des articles liberticides doore jooju nag la ñu war a wàññi jëlee ko ci procureur yóbbu ko ci li ma gëm man yóbbu ko ci le président tribunal jërul sax ñuy créer le juge des libertés et de la détention nañ jël doole ji rek wàññi ko li ci ëpp jox ko le président tribunal mu mën a jàkkaarloo procureur waaye ko deful jaay doole du fi mas a jóg article 139 du code procédure pénale moom à l' application heure bu ko procureur demandé la juge est mooy day day wax li li li procureur bi bëgg loolu lay def te procureur souvent nag procureur nag dafa kilifa kilifa bu muy de la justice kilifa bu mooy premier ministre kilifa mooy président te ñooñu nag ay prédé politique moo tax kuñ bëgg yóbbu kaso la yóbbu kaso kon ñun côté boobu la ñuy waxee moo tax mbir mi liñ ci ñaan mooy kilifa yi ci boppam ñoo war wax ak mu teggi loxoom bàyyi kii yóbbu ko ñu atte ko buñ ko attee luñ ko teg mu tegoo ko waaye buñ ko yóbboo ci lii kaso détenu politique lay tudd comme ni ko président Diomaye tuddee woon comme ni ko président Ousmane Sonko tuddee woon ak ñeneen ak ñeneen.